Ousmane Coulibaly ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax euh, secretaire général ADHA Action pour les droits humains et l'amitié juriste nga itam euh, ak expert électoral. Mm, tout à fait waaw. ci souci rek euh, def euh, un peu de décrispation euh, ci climat politique bi nga xam ne jamono ji sooxe na lool ñu mm-hmm. nameeku ni nguur gi mi ngi jëf ay jéego am na ñi nga xam ne ñu ñu tëjoon ñu ngi leen di libérer ñu tuddee leen ay détenus politique mu yàggoon nekk yéen seen combat ñu bëri jot nañ leen libérer lu ci sa xalaat. voilà euh, déjà euh, loolu nga wax maanaam décrispation bi ñuy def mu ànd ak ay mesures yoo xamante ne nii mooy libérer ay détenus yoo xamante ni dañu nekk ci prison yi du ma tuddagum détenu politique parce que président de la république moom moo taxawoon ne détenu politique amul alors que bu ñu duggee ci code yi rek ci texte yi ba définir luy détenu politique xamoon nañu ne loolu mu wax dafa waroo ak li mm-hmm. donc effectivement au Sénégal am na ay détenus politiques yu mm-hmm. bëri yoo xamante ne ni ñëpp constaté nañ ko. Mm-hmm. voilà léegi nag bu ñu demee ba di leen di libéré ada comme ni nga ko xamee dañ ciy fier dañ ciy sant dañ ciy kontaan. ndax xam ngeen yéen ñëpp que ne yàgg nañ ci xeex yàgg nañ ci wax bind nañ ci communiqué def nañ ci lu ne conférence de presse pour wax leen ne kat nit ñi dañu war a am liberté de ton mën a wax seen xalaat bu dee dara daf leen neexul ci seen réew. Mm-hmm. donc loolu war mun a tax may benn prox ndoll ñi jiite bu dee loolu ñooñu liñ leen ñi ñuy wax neexu leen ñu téye leen loolu yàgg nañ ko xeex donc xamal leen ne daal nit ñi dañu war a libre que liberté moom mooy li nga xam ne moom moo war. Mm. jàpp nit mooy li nga xamante ne ni de manière exceptionnelle bu mënul ñàkk rek lañ ko war a def. Mm. donc encore une fois dañ koy saluer bu baax di ci kontaan di wax nag nañ ko wéyal ñu libéré ñeneen ñi nga xamante ne dañ fa des parce que ñu ci bëri ñu siiw lañ libéré. Mm-hmm. waaye nag am na ñoo xam ne kenn xamu leen ñoo xam ne ñi ngi ci prison yi ba léegi nañ leen libéré ndax je pense que amuñu luñ fay def képp mm. koo xamante ne ni se nekk ci biti. du indi benn euh, danger pour la population je pense que da nga war a nekk ci biti bu dee am nga garantie de représentation comme niñ koy waxee. Mm-hmm. léegi nag kontaan nañ ci waaye nag dañu posé wu ay questions ndax également bu ñu fàtte ne loo bëgg-bëgg nit libre mais dëkk bi dafa am ay chartes yoo xam ne noonu lay doxee voilà lépp looy teg. dafa war a am fu muy jaar loi prévoir ko règlement prévoir ko nga war a am ci foo koy bind ñu jox la këyit je pense que état de droit noonu lay doxe mm-hmm. voilà léegi nag moo tax ñun bi ñu gisee nag libération yi dafa takkar naa si ba pare ni muy amee bëri maanaam six cent ci ñetti fan ou quatre si je tromp mm-hmm. donc euh, mais ñu posé question ndax procédure yi waral ñu mun a libérer nit yëpp. tàpp nañ ko maanaam ba pare xool ban nature libération parce que am na lu ñuy wax liberté provisoire nga xam ne euh, suñu code de procédure pénale moom moo ko prévoir à travers les articles cent vingt neuf cent trente je dirais cent vingt neuf et suivant teg nañ ci procédure bi nan nga ko war a defee koo koy bind yan input lañ ci war a def nan lañ koy transmettre procureur de la république mu def ay input mu delluwaat ko juge d'instruction en tout cas lépp lépp leeral nañ ko foofu moo tax ñu posé wu question. d'accord nan lañ leen libéré ndax liberté provisoire la. Mhm. wala ndax kat dem nañ ci yoon ba yoon gis ne kat ñii liñ leen di toppee nekkul ñu relaxé leen bu dee délit wala ñu acquitté leen bu dee crime yooyu yëpp dañu bëgg a xam sax mu nekk libération d'office boo xamante ne nii pouvoir procureur la moom moo koy demandé juge d'instruction. Mhm. yooyu yëpp dañu bëgg a xam ban la ci ak nan la demee ndax procédure yi topp nañ leen. Mhm. parce que dafa am solo itam bu dee dañuy xañ nit liberté donc dafa war a tegu ci lu wóor waaye bu dee dañ koy delloo liberté boobu aussi dafa war a tegu autrement loolu bu amul rek day am ay jiixi jaaxa te la preuve am na ay jiixi jaaxa ci bopp askan wi du ñun ada mais ci ñëpp la jiixi jaaxa bi am ba booy sax nit ñi ci réseaux sociaux yooyu dañuy gis ñuy reetaan di foo naan ah bàyyi nañ nit ñi de mais dafa mel ay terroriste la ñu bàyyi donc tout le monde est en danger vous voyez un peu l'opinion mm, mm. c'est pourquoi ñun ñuy xeex pour que ñëpp libre mais nag lépp dafa war a tegu ci yoon parce que bu teguwul ci yoon rek dañuy jox porox ndoolu ñi nga xam ne dañ taxawoon ne kat effectivement ay la dañ leen jox raison mm. parce que détention arbitraire rek moom boo xam ne jaarul yoon jaarul benn procédure. Mhm. c'est ça. dëgg la euh, ñu bëri sax euh, wax nga ko euh, lu ñu leen doon toppee ay faits yu grave la yu ci mel ni terrorisme acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique Adda mu mel ni dafa am xel ñaar ci anam yi nga xam ni moom lañ leen a libéré lu ko waral. waaw dafa am dañu am xel ñaar comme ni ma la ko waxee sànq rek parce que lépp loo gis procédure la mm-hmm. ba pare délai yi gis nga procédure yi dañ ci def ay délai yoo xamante ne ni tey jii nii bu dee dugal nañ demande de mise en liberté provisoire mais munoo ko am lu lu yées ñetti fan mënta ne parce que da ngay saisir juge d'instruction dans les quarante huit heures mu saisir procureur kooku am na dix jours bien sûr mun na ko def avant les dix jours saisiraat def une pour joxaat juge d'instruction mu am quatre jours pour mën a euh, joxe ordonnance am bu ko joxul ñu ne la inculpé bi mun na def saisir la chambre d'accusation chambre d'accusation mun na ko def ci un mois bi bu ko deful léegi procureur général moom dafay décider pour que ñu libérer nit ki mm-hmm. vous voyez un peu cette procédure dem ba un mois et donc du ay caaxaan c'est pourquoi nag bu ñu xëyee rek en mm. deux trois jours ñu gis six cent personnes génn mm. mais attends on est dans notre droit de nous poser des questions mm. te questionnement yooyu yëpp posé wuñu ko parce que dañoo mer comme ni nga ko waxee dañoo kontaan mais on pose les questions pour xool ndax procédures yi jaar nañ ci buñ ci jaarul ñu xam ne kon kon lii c'était des détentions arbitraires et que ñu inciter autorités yi pour ñu bañ ci doxalee noonu parce que nit ñi dañ leen war a bàyyi ñuy doxal dañ leen war a bàyyi seen liberté bu mënul ñàkk ñu doog leen xañ liberté je pense que état de droit noonu lay doxee donc boo gisee loolu moo waral scepticisme bi loolu moo waral ñuy posé wu des questions yoo xamante ne nii am nañ droit posé wu ko ndax dafa am jiixi jaaxa yu bëri ci suñu xel mais dafa am jiixi jaaxa yu bëri yoo xam ne dafa nekk ci xelu sénégalais te ñu bugg autorité yi vraiment ñu leeral ko te je pense que dina leer ndax euh, tey ci bésum mardi bi dégg nañ ñu ne bind na gis nañ sax bind que ne ministre de la justice mmh. dafay def conférence de presse au niveau de King Fahd Palace mmh. presse nationale et internationale pour la l'actualité concernant l'actualité judiciaire je pense que c'est judicieux mhm. bu dee askan wi dañuy poser waaye question aussi autorités di génn di leeral je pense que am na solo te peut-être ñoom buñ ko defee ba pare ah lépp dina gën a leer ci suñu bët mais actuellement moom vraiment am nañu ay jiixi jaax ci suñu bopp. d'accord Ousmane sa xel màcc na ci wàllum yoon itam euh, ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoom la ñu euh, euh, a jox ndàmpaay ci nguur gi. waaw ñoom bu leen neexee mun nañ laaj waaye laaj dara ndax di nga ko am loolooy wax ci. Mm-hmm. parce que comme ni ma ko waxee rek euh, dëkk bi ay yoon a ko tënk ay règle ci domaine bu ne. Mm-hmm. mais boo xoolee pour les demandes d'indemnisation mën na ne mais mën na ne ci ki nga xamante ne nii dañ ko topp. def ay acte de procédure. Mm-hmm. ñu juger la ba voie de recours yëpp épuisé ñu gis ne kat yow mii kat da nga am mujj am dëkk la da ngay fondé en droit pour que nga mën a demander des indemnisations mais loolu bu dee amul ah lu ñu la mën a tëj tëj tëj après malheureusement euh, voilà du mujj fenn. Mm-hmm. et ce qui est dommageable je pense que dans ce sens war nañ mën a xoolaat règles yi xoolaat yu bëri. pour que di mën a introduire loolu bien sûr si la détention est arbitraire bu dee les voies de recours n'ont pas été épuisées voilà si la détention est bien légale et normale que nga épuiser toutes les voies de recours effectivement recevoir indemnisation mm. mais en tout état de cause actuellement ñooñu noonu loolu ñuy laaj mënuñ ci am bu dee dañu sukkandiku ci wàllu yoon parce mm-hmm. que yoon prévoir ko d' accord euh, gannaaw ba ñu génnee ñu ci bëri Ousmane ci yooyu le détenus euh, ci ay plateau télévision wala ci vidéo euh, ñi ngi doon expliquer ci anam yi nga xam ne moom lañ leen tegee loxo ak anam yi nga xam ne euh, moom la ñu nekkee woon na ci biir prison yi mu doon traitement yu doy waar euh, ban jàngat nga ci am ak lan mooy position ADHA ci loolu. waaw mettit ak xol bu metti rek ak di am désolation ci état d'esprit ak ni ñu ñu ni ñu ni jàppee nit ça va ça montre encore une fois que joxuñu respect nit ñi dignité humaine yu ci bëri respecté ko au Sénégal et la plupart du du du temps FDS yi la jàpp nit ñi ak bu ñu la xasee ba dugal ci prison parce que les conditions de détention comme ni ñu ko waxee man maa ngi gis benn témoin nag xaw ma nag ndax dëgg la wala du dëgg du ma ko dëggal mais dañuy sukkandiku rek ci li nit ki wax te bu dee loolu mu wax mooy dëgg loolu da ngay xam ne lii détention arbitraire la te force de l'ordre yi nga xam ne dañu prêter serment ils n'ont pas à agir de la sorte parce que dañuy outrepasser seen prérogative la preuve nit ki lu mu wax mu ne man dama xëy di liggéey ma dajeek mhm. FDS ñu ne ma taxawal ma taxaw ñu ne ma foo jëm ma ne damay liggéey ñu ne ma a xool sa téléphone ma wane sama téléphone ñu gis ci fond d'écran bi Ousmane Sonko waa ji ne ma kon yow da ngay manifester vous voyez un peu mhm. donc loolu ça ça c'est contraire à la dignité humaine mm-hmm. et nous organisation des droits de l'homme on s'érige en bouclier face à ces actes même chose les actes de torture am na ñu génn aussi ba daal di témoigner ba gi sumi seen sax ñu gis Mm-hmm. liñ fa nekkee woon ba am na ci sax koo xam ne bi mu fay dugg damay fàtte tur bi mm-hmm. mi ngi fay dugg ak ay tànk di dox bi muy génne beeki la doxee mm-hmm. lan moo indi loolu et c'est pas la première fois François Manko bu gis nañ ko man bi mu amee sax bindoon naa ci ñaawlu li am ma ne ñu ne mais garde à vue garde à vue si mais administration bi moom moo am responsabilité de tout ce qui va se passer mais on te garde à vue après tu décèdes parce que ñu ne wala nit ki dafa doon mbëkk mais yow mi ko gardé à vue yaa am responsabilité xañ ko même bu dee dafa bëggoon def boppam lu loo xam ne jéggi na dayo mm-hmm. nga xañ ko ko parce que yow yaa jël responsabilité xañ ko liberté donc lépp lu ñëw lépp lu am ci circonstance yooyu yow yaa war a nekk responsable mm-hmm. mais malheureusement du mujju fenn parce que c'est les FDS et ce je pense que bu dee dañu nekk dans un état de droit képp ku mu munti doon bu dee da def loo xam ne dafa méngawul ak yoon dañ la war a topp la preuve en matière dans cette matière par fan yii la moo tax ñu ne dañu reporter élection yi parce que dañoo soupçonné des juges de corruption mm-hmm. et vous voyez un peu c'est des juges ne xam nga niveau bu ñu toll à fortiori mm-hmm. koo xam ne dañ la teg ci euh, établissement pénitentiaire tu te permets nga ne da ngay ay nit bu ñu munul baal ay juge yoo xam ne conseil constitutionnel et d'autant plus du mën a baal sax parce que dañu leen soupçonné rek de corruption te looloo tax ñun ñu ne dañoo <laughs> reporter suñu élection et vous voyez un peu des actes de torture yoo xam ne am na leer nañu ne am na ñuy bàyyi noonu mu sedd vous voyez un peu le deux poids deux mesures c'est-à-dire bu dee citoyen lambda bi koo xam ne daal moom amul ndey amul bàyyi dañuy bàyyi waaye bu dee peut-être benn Karim Wade moom jar na ñu mën a reporter suñu élection alors que moom ñëpp xam nañ ne li muy laaj tegu ko fenn mm-hmm. parce que effectivement il a parjuré Mhm. donc ma bañ a dugg ci domaine boobu parce que beneen domaine la mais c'était juste mhm. pour faire du parallélisme mhm. def analogie par rapport à ce qui se passe de l'autre côté donc pour dire que nit ñi war ñu leen jàpp ci loo xam ne du yoon mais waruñu leen torturer pour avoir quoi que ce soit wala pour di leen faire avouer dégg naa beneen témoignage aussi boo xam ne nit ki nee na dañ ko doon torturer pour wax ko waxal bàyyi naa Ousmane Sonko vous voyez un peu où est-ce qu'on en arrive dans mm-hmm. fan la politique di yóbbu nit ñi te suñu FDS yi suñu administration pénitentiaire et cetera ñooñu c'est des fonctionnaires administration yoo xam ne dañ leen jël fi ñu leen war a jëlee donc politique yi bu ñuy def ñoom waruñu leen dugal ci yenn yi parce que ñoom loolu du seen cër ndax dañoo jàng fi ñu war a jàngee war a exercer ni ñu war a exercer donc dara waru leen jaral ñuy dugg ci des questions politique pour torturer avoir des informations wala am benn conclusion wala am benn résultat que ce soit pour des hommes politiques ce qui n'est pas normal d'accord léegi libéré nañ leen kon ban taxawaay la ñu war a am ci ñoom peut-être euh, ab psychologue bu leen di leen topp c'est important suivi psychologique parce que muno bàyyi nit comme ça après huit mois de détention neuf mois de détention sachant que c'est pas normal parce que voilà am na ci délit yoo xam ne bu dee da ko def l'instruction bu dee dañ la fa dugal warul passer euh, six mois bu dee nag en matière criminelle ou bien des faits d'actes de terrorisme effectivement mun na dépasser six mois l'instruction est illimitée mm-hmm. donc bu ñu la détenir tout ce temps in ñu génnee la sans procédure du ma ne sans procédure parce que xamaguma moo tax ñu poser question mm-hmm. mais si se révèle que lool la mais waruñu leen génnee rek bàyyi leen dañu war am benn suivi psychologique mais suivi médical aussi xool leen lan moo nekk seen bopp yi ndax du leen topp après xool ndax jëlewuñ fa benn feebar benn jàngoro parce que kasokat du bu normal mm-hmm. donc nit buñ ko fa jëlewee même dans des situations normales ñu génnee ko fa donc war nañ la suivre médicalement ak psychologiquement pour xool ndax yow di nga mën a réintégrer réewaat normalement la société je pense que loolu mooy li gën a ndaw lu ñu leen mën donc nañ ci taxaw bu baax. dëgg la euh, lu ëpp ci ay junniy euh, détenus am na ci ay jigéen ak ay mineurs euh, tàmbali nañ xiifal lundi dañuy ñaawlu rek longue détention yi sans ñu am jugement ak anam yi nga xam ne moom lañ leen tëjee lu ci seen xalaat. waaw suñu xalaat mooy ñoom dañu nekk ci seen wareef te li ñuy def du ma duñu leen encouragé ci grève de la faim parce que duñ ci encouragé kenn ndax ñun dañu bëgg kat ñu dund bëgguñ ñu yegg ci yenn extrémité mais yoon la ci ñoom que ñu ñaxtu ñaxtu bi nag mun na jël plusieurs formes mais retenons ko pour le principe yoon la ci ñoom ñu ñaxtu nekkat conditions yi nga xam ne moom lañ leen téye woon du yoon je pense que Euh, voilà loolu nañ ci xalaat bu baax a baax mais que yoon la ci ñoom. Mhm. ñuy ñaxtu ci loolu te ñëpp war nañ leen ci jàppale kat ñu gis ne ñii dañ leen tooñ et que s'il peut y avoir réparation malheureusement il risque de ne pas y réparation mais ñu def ko parce que loolu mooy li nga xam ne moom mooy yoon. d'accord euh, bu ñu sukkandikoo ci mouvement FRAPP libération détenus euh, Dakar rek la concerné yeneen région yi génneeguñ fa kenn ndax mënuñu jàpp ni discrimination am na ci. bien sûr discrimination la bien sûr rupture d'égalité la mhm. donc loolu nañ ko le plus rapidement possible étendre ko dans toutes les régions et d'ailleurs ça fait l'objet de notre communiqué bi ñu génnee woon relativement à la question mhm. en disant que nañ dindi ñëpp nañ génne ñëpp mais nañ génne également bu ñu fàtte ñi nekk ci région yi mais également bu ñu fàtte ñi nga xamante ne ni xamuñu leen parce que ñu ci bëri ñu ngi ci prison yi te kenn xamu leen ah mhm. donc nañ ci xel pas que di wax ñi xam ne xam nañ leen diw diw diw diw génne leen ak jóg génne leen kii mais nañu génnee ñëpp xale yi surtout les mineurs mmh. seen place de foofu mmh. je pense que notre corpus juridique a prévu ce ce genre de situation mmh. mais nan ngay mineur di ko yóbbu fële alors que pourtant fii euh, fort ba camp fort ba mi ngi fi pour ñu fi ñuy war a détenir les mineurs vous voyez un peu donc ça part dans tous les sens et que je pense que il faut siffler la fin de la jaar yoon lépp loo xam ne ñu ngi koy def daal ñu jaarale ko yoon ñu étendre ko ba ci région yëpp que tous les détenus soient libérés. mais par la voie légale également. c'est important. dëgg la euh, ci lim euh, détenu politique yi ëpp nañ ay mil euh, waaye boobu ba léegi lu mot ci ay trois cent rek la ñu jot a ñu ñibbi seeni kër bu ñu sukkandikoo ci collectif bi lundi bi rek ñeent rek la ñu jot a libéré te jàpp nañ ñi ñoom itam processus bi jeex na ñi ci des nag. effectivement processus bi mënul jeexee fii loolu je ne pense pas que a mën a jeex comme ni ngeen ko xamee on suivait l'évolution bi ñu leen doon jàpp bëri woon nañ demoon nañ ba mille cinq cent et mhm. trois trois cent la wala six cent rek yem fa processus bi mënul jeex. Mhm. je pense que nañ continuer li doon def libéré ñëpp tey kenn koo xam ne dañ lay bay politique mhm. waroo mën a toog ci prison mënta ne léegi nag ne dañoo def nag que dañoo def pour des délits de droit commun la yoon na def liggéeyam mais képp koo xam ne dañ lay détenir arbitrairement prisonnier politique pour quoi que ce soit. Hmm. je pense que il est temps que ñoom ñëpp ñu génn processus bi warul mën a jeexee fi parce que je pense que commencé gu sax day yéex. Hmm. lii c'est juste une goutte hmm. dans la mer mais nañ génnee ñëpp parce que li leen war mooy nekk seen i njaboot ñiy génn dem doxal seen liggéey dundal seen njaboot je pense que on doit aller dans ça continuer vraiment ce processus ba ñëpp génn ci prison yi tey te ñun loolu mooy suñu xeex dinañ ci wéyal ci wéyal bu baax te on a prévu également dem ci prison yëpp xool. les conditions de droits humains sont respectées dans tous les établissements autorité bu ñu tiit bu ñu ñëwee on le fait juste par patriotisme pour xool suñuy naataangoo sénégalais ndax ni ñuy dundee ci yi baax na mm. lu ñu leen mën a dimbalee ñu dimbale leen ko bu dee wax ak ñoom conscientiser leen ñu def ko bu dee appui lu mu munti doon ñu def ko parce que loolu aussi mooy suñu rôle ci société bi Ousmane Coulibaly Rewmi FM mu ngi lay sant di la gërëm waaw maa leen di sant bu baax di leen remercier également si leen leen remercier également